asalaamaaleykum da leen nag jàmm Sénégal bu ñu moyul dana soobu ci loo xam ne kenn mënul xam fu muy mujjee bu dee jongante tànn président suñu réew amaluñu ko balaa mandat bu président de la république di jeex ci ñaari fan ci weeru avril mooy ngëm-ngëmu professeur agrégé en droit di Kader booy moom mi fi nekkoon recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jiite le sursaut citoyen muy ak kuréel boo xam ne dañu cay xalaat ak it amal ay jëf professeur Boy bi sekk waxtaan bu yaatu yaatu ak ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien muy dellu si nag ci li nga xam ne mooy mandat président de la République bi nga xam ne kenn mënu ko yokk te it mënuñ kaa wàññi te it conseil constitutionnel fàttali ko bu baax a baax professeur Kader Boy joyante ne it ñi nga xam ne dañu bëgg a sukkandiku ci article 36 bu ndey charte réew mi ngir président Macky Sall des ci bopp réew mi bu ñu weesoo ñaari fan ci weeru avril professeur Kader Boy di xamal Sud Quotidien ni lu musa am la ndax Sénégal musuñ amal benn élection boo xam ne day wees mandat président de la république moo tax it bu ñu falee kenn ba mu waat ci kanamu askan wi moom mooy président de la république balaa nag muy waat président bi nga xam ne moo nekkoon ci bopp réew mi moom mooy wéy di wéyal balaa mu koy jébbal lenge yi loolu rek la kii artu mooy professeur Kader booy waaye nag mu yokk ci ne bu amul nag ay élection article 36 bile kenn warul wax waxam dañuy des ak waa Sud Quotidien bi xam le ne démb ci réunion conseil des ministres bi ñu doon amal ci palais de la république président ki Sall joxe na ay dëgte yu wóor nag ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi ngir mu jël bépp matukaay ond ceek ministre bi ñu dénk wàllu finance ak budget waa na ak it yeneen kilifa yi ngànk wàllu administration suñu réew ngir ñu yembal yoon yi ñu yóbbu ci élection tànn président suñu réew bi nga xam ne nag app bi kenn xamagu ko dinañu ko xam ci bés yu ñu jëm Le Soleil it dellu si bu baax a baax ci li tukkee ci conseil des ministres boobulee di xam ne ni njiitu réew mi jëmale ci organiser jongante yi ñuy waajal suñu réew jël na ay mesures yu am solo te it muy féddali nii li ko soxal ubbi ay waxtaan yu yaatu yaatu ngir déggoo ci kàddu dajale doomi réew mi ngir yëpp mën a am ci jàmm ak le quotidien mu ne fi mu toll nii dara leeragu ci ndax président de la république ci conseil des ministres xamle na ne bés biñ koy amal dina ko xamle ci bës yi ñu jëm yàqamtiwul benn yoon loolu ngëm-ngëmu waa quotidien ni ni mel la waa réew mi quotidien gisee di xamle ni Macky Sall tey la gën a lëndëmal mbir yi jëmale ci yoon yi nga xam ne moo ñu yóbbu ci yooyu la jongante ak it kan lañ koy amal ndax li ko soxal mooy waxtaan yu yaatoo yaatu yi ak ne d'amnistie maanaam loi boo xam ne dañu koy yëkkati ngir baal ñenn ñi bés bi le jour di xam le ne fi mu toll nii ak lu mën a am njiitu réew mi faaw mu àddu jëmale ci li ko conseil constitutionnel waxee ñu amal jongante yi ci ni mu gënee dañuy des ak bés bi le jour ak ëttu yéenekaay ñu xëyee ndool yoom ñëpp ñu ngi xamal ne tey jii bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon président Macky Sall dana àddu dina jàkkaarloog waa ITV waa RTS Le Soleil ak waa Seneweb Sud Quotidien di ci samp ab laaj lan la ci njiitu réew mi nar a waxtaanee waaye lim ci déggoog bés bi le jour mooy mi ngi am ginnaaw gi nga xam ne nag conseil constitutionnel xamal ne ko ne dafa war a amal yooyu la élection ci ni mu gën a yembee waa bés bi le jour di ci samp ab laaj ndax Macky Sall day xalaat Ousmane Sonko ak Diomaye Faye ni muy xamle nii dañoo war a fexe ba teg ci kanam baalante waa bés bi le ne njiitu réew mi bu juróom-ñaari waxtu jotee dina féexal waa réew mi kii nag moom féexaluñu ko waaye dañ ko yóbbu ci biir kaso bi muy ngañ Ndemba bu ñu sukkandikoo ci yoor yor bi nag dañ ko teg loxo ginnaaw bi mu gàddaayoon dem ca Mali dellusiwaat ci réew mi waaye nag niñ ko tegee loxo nag Sud Quotidien ak yor-yor bi di xamle ne nag neexul benn yoon ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci wàllu justice ak it ndaw yi nga xam ne moo leen jiite te ñuy ay patriote maanaam bokk ci Pastef ba woon kuréel bi ëmb greffier yu Sénégal ñoom ñu ngi araftu jëmale ci ministre bi ñu dénk wàllu yoon ci suñu réew loolu la nag waa quotidien ñoo koy dëggal démb juge deuxième cabinet d' instruction bu tribunal bu ndakaaru di Mamadou Seck mujjiwul déglu maître Ngagne Demba Touré li ko waral mooy greffier yi ñoo ñëw dajaloo ci buntu biroom tere loolu le greffier bi nga xam ne sax nag moom moo waroon teewlu Ngagne Demba Touré dafa lànk carré déglu bi ñu war a déglu maître Ngagne Demba tey ji la ñu koy amal dañuy des si xët-xët yooyu wàllu politique ak li mu jur ci université gas Gaston Berger ndax am na beneen l'étudiant ginnaaw Alpha Yero Tunkara bu fa ñàq bakkanam muy Prospère Célestin Senghor moom ginnaaw gi mu amee ay gaañu gaañu dañ ka rawale woon ci Sowétas hôpital principal bu Ndakaaru mu mujjee wuy suñu borom démb tax ba étudiants yi mer ba futt nit faw ñu leeral mbir yi donte nag daqal nañu grève bi amuloon app bi nga xam ne ci lañ soobu woon dañuy des ak étudiants yi ndax yi fare ci Ndakaaru démb ki seen toogaanu sikkimu xam la nañu lenn rek leen soxal ñooy ubbiwaat université bi waxtaane ba tey wàllu présidentielle bi ñuy waajal ñu waxtaaneek mbëru Benno Bokk Yaakaar mu ngi gën a dajale ay ñoñam Le Soleil ak waa L'As dañu xamal ne jaarale ko ci ab bataaxal directoire campagne bu candidat coalition Benno Bokk Yaakaar démb dañoo dajaloo woon ci teewaayam mu profitoo ci nag pour xamal ñoñam yi daal nañu wëyal liggéey bi jëmale ci boobu lay jongante ci jamono jooju nag kuréel bi ëmb jigéen ñi nga xam ne ñoo fare ci APR daal yëngu na bu baax a baax li ko waral mooy ñàkk déggoo bi ñu nemmeeku ci biir jigéen yooyu le tax ba Thérèse yu Faye ak ay ñooñam beddeeku teg beneen mouvement ci wet wa bu uteeg bi nga xam ne moom la ndey Saly Diop Dieng yëkkati xibaar boobu it waa l'info di ko dëggal di xam le ne xaajaloo bi ñu nemmeeku ci kuréel bi ëmb jigéen yi nga xam ne ñoo fare ci APR moom rek a feeñ APR ak ay bànqaasam ci boppam fi mu toll nii xëccoo bu taratar diggante ñi ànd ak candidature Amadou Ba ak ñi nga xam ne nee nañ du ca dal fës na lool ci wàllu tàggat yaram nag quart de finale yi nga xam ne moom la ñuy door tey jii ci alxamis bi jëmale ci coupe du monde football li ñuy amal ci tefes bi moo soxal waa stade muy xamle ni waa japon danañu dëkku ponkal bii di brésil émirats ak biélorussie ñoom it fas yéene am taxawaay bu am solo di xamal li tax sénégal mu teel a génn ci boobu boobule mondial waa SAD di dellu si ëllëgu Aliou Cissé ci bopp équipe nationale bi moo fa nar a wéy nekk entraîneur ñi mu doon tàggat bokk na ci iso ak limaan ci barrage retour Europa League bi tey jii ci ngoon li leen di xaar li yombul dara nampalisit mun nañ ko tiital bu baax a baax lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Le Sénégal risque de faire un saut vers l'inconnu si l'élection présidentielle n'est pas tenue avant l'expiration du mandat du président de la République le avril prochain. C'est la conviction du professeur agrégé en droit Kader Boye, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et président de la plateforme Le Sursaut Citoyen, un groupe de réflexion et d'action. Professeur Boye s'est entretenu avec Sud Quotidien en revenant sur l'intangibilité du mandat du président de la République qui a été rappelé par par le Conseil constitutionnel, non sans recadrer ce qui évoque l'article 36 de la Constitution pour maintenir le président Sall au pouvoir. Et d'après professeur Kader Boy, l'article 36 a toujours existé parce que jamais dans cette République une élection ne s'est déroulée au-delà de la date d'expiration du mandat du président de la République. Donc si on élit et que l'élu prête le serment, il est président de la République avant qu'il ne prête serment. Le président sortant reste en fonction avant de lui donner les pouvoirs. C'est tout. Mais quand il n'y a pas d'élection, cet article 36 ne peut invoqué, tranche professeur Kader Boy, au moment où la réunion du Conseil des ministres s'est tenue mercredi au Palais de la République. Au cours de cette rencontre, le président Macky Sall a donné instruction au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Sénat et les autres autorités administratives pour une bonne organisation de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée Le compte-rendu du Conseil des colonne du Soleil qui renseigne que le chef de l'État prend d'importantes mesures. Concernant toujours l'organisation de la présidentielle, Macky est dans le brouillard, intime conviction du quotidien Le Quotidien, avec le président qui annonce que la date de cette présidentielle sera fixée prochainement. Le chef de l'État qui rappelle en Conseil des ministres qu'il compte la précéder d'un dialogue et de concertation inclusif avec notamment la société civile et toutes les forces vives de la nation. processu électoral inclusif, tenue de la présidentielle, dialogue, loi qui épaissit le brouillard, selon Réumi Quotidien. La presse parue ce jour renseigne que le chef de l'État va se prononcer à 19h. Il va faire face à la presse d'après Le Soleil, qui précise que cette prise de parole intervient après qu'il a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle. Affirmatif semble dire Sud Quotidien, qui s'interroge que va dire Macky Sall Va-t-il annoncer la date de l'élection présidentielle Le sujet intéresse également Bosby Le Jour, qui affiche à sa une ou non des meilleurs délais. Macky qui fera face à v à la RTS, au Soleil et à Sénéweb. Bosby Le Jour également de s'interroger Macky Sall pense-t-il à Sonko et Diomaye en demandant de matérialiser le pardon et la réconciliation. Justement, exécution du mandat d'arrêt, Ngagne Demba est exilé à Rebus. d'après Bës Bi Le Jour. Son arrestation est largement relayée par la presse parue ce jour, notamment Yor Yor Bi, qui renseigne qu'il a été mis aux arrêts. Et suite à cette arrestation, les jeunes patriotes et acteurs de la justice sont sur le pied de guerre. La jeunesse patriotique sonne la mobilisation et avertit le pouvoir, alors que l'amicale des greffiers du Sénégal met en garde la garde des Sceaux et que le Sud-Juste, toujours d'après Yor Yor Bi, exige sa libération immédiate, alors que l'Union nationale des travailleurs de la justice dénoncent la traque éhontée de leurs collègues. Justement, à ce propos, le quotidien de renseigner que les greffiers sont noirs de colère suite à cette arrestation de Ngagne Demba D'ailleurs, le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de Dakar n'a pu l'entendre. Les greffiers se sont rassemblés en masse devant son bureau pour empêcher l'audition de leurs collègues. Le greffier qui devait prendre l'audition a tout bonnement refusé de le faire. L'audition est reprogrammée pour aujourd'hui, d'après le quotidien qui renseigne Dembo Touré est accusé d'association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, d'offense au chef de l'État, d'actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves. Suite au décès de leur camarade Prosper Clédor Senghor, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis suspendent leur mot d'ordre de grève illimitée mais réclament justice, d'après Sud Quotidien. et le soleil. Prosper Clédor Senghor, décédé à l'hôpital principal où il était admis en réanimation. Au moment où les étudiants de l'université Cheikh Diop de Dakar continuent de dénoncer la fermeture du temple du savoir depuis le mois de juin dernier, lors d'un sit-in tenu hier, mercredi 21 février, le collectif des amicales des étudiants de l'UCAD a exigé la réouverture de l'université et la reprise des cours en présentiel dans les plus brefs délais. Reparlons de la présidentielle avec Amadouba qui remobilise ses troupes, d'après l'AS le Soleil. En sa présence, le directoire de campagne candidat de la coalition Beno Bokuyakar, s'est tenu hier pour analyser l'actualité politique. Et au cours de cette rencontre, le candidat de la majorité a appelé ses partisans à poursuivre le travail entamé au moment où divisé entre pro-Macky Sall et pro-Amadouba, les responsables du mouvement des femmes de l'Alliance pour la République ne parlent plus le même langage. D'ailleurs, Thérèse Faye Diouf et compagnie qui reprochent à Ndeye Saly Diop Dieng de rouler pour le Premier ministre au détriment du chef de l'État ont créé un mouvement parallèle, renseigne Busby le jour et l'info qui alerte on va tout droit vers une scission et l'info d'informer la division ouverte au sein du mouvement des femmes n'est que l'arbre qui cache la forêt. En effet, L'APR et tous ses démembrements sont affectés par l'antagonisme entre pro et contre la candidature de Amadouba. En sport, la phase à élimination directe du mondial de beach soccer 2024 débute ce jeudi avec quatre alléchantes affiches en quart de finale. Le Japon s'attaque à l'ogre Brésil, les Émirats la Biélorussie pour la surprise d'après Sad, le quotidien du sport, qui nous dit pourquoi le Sénégal a été éliminé du mondial 2024. À venir à la tête de la sélection, Aliou Cissé est parti pour rester, renseigne Sad. Alors que pour ce qui est des barrages retour de l'Europa League prévus ce soir, Iso et Liman sont dos au mur et Nampalès est en danger à Fribourg. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.